on a Euh, danoo nekkoon euh, ndax condition yi moo difficile foofu noonu dafa metti woon surtout ñun ñu nekkoon chambre 2 nga xam ni amuñu aération ba pare toiture bi nekk en zinc ak Dakar nu muy tàngee donc ah. vous imaginez dafa dafa moo tax ñii ñu xañ seen ventilateur yi moo taxoon ma de cœur ndax fee au moins y avait douze ventilateurs à l'intérieur de la chambre mais ak toiture en zinc Maria sans aération amul fenêtre day tàng amul parce que fenêtre yeeg kii bunt bi ñoo aligné donc amul ventilation amul dugg ak génn donc voilà euh, amul benn sens amul benn impact amoon na ay extracteurs nag y avait trois extracteurs mais ñu bi ñu ñëw foofu nag da ko fekk mu nekk en panne moo taxoon ma doon interpeller la directrice ndax bi ma laajee yenn garde yi dañ ma ne extracteurs yi su tàkkoon moom mooy asp aspiré chaleur bi ko génnee mhm. madame nag ma bon interpeller naa ko à maintes reprises pour comme ça au moins mu remonter information pour ñu defaral ko parce que ay nit ñooy tëdd foofu mhm. noonu mais tout le temps elle ma fee mu naa ma bon en fait mooy nga xam dañuy naan daal prison du kër bu ku nekk prison daal da war a dund torox tànge daal donc loolu moo taxoon ma xaw a metti et bi ñu jëlee décision ne dañuy def grève de la fin nag pour amélioration des conditions des détenus loolu moo indi woon ñoo jëlee décision def grève de détenu ñun détenu politique yi nga xamante ni ñun lu politique mënu fa dëggal à tout moment mën nañ fa génn mais on avait jugé nécessaire que au moins même bu fekkee dañuy dem ay doomi aadama lan fii bàyyi et ñoom itam elle mérite d'être ndax jigéen déjà dafa sensible elle mérite d'avoir des conditions yu baax donc moo taxoon ñu doon def suñu grève de la faim et à notre quatorzième jour. xam nga kon loo foog nag quatorzième jour wala da ngeen doon lekk une no non non man mi man bokkoon naa ci ñu nu jotoon évacuer man ak aji ndaw. Mhm. ñoon la ñoon ñu bu Kaolack waaw bu Kaolack ok moom moo nekkoon ki nekk Suisse moom lañ ci jotoon évacué moom ñu yóbbu ko spécial man ñu yóbbu ma infirmerie médecin chef ba ñoo fekk ma foofu naa ma boo fi deewee tamit rapport dong la ñuy bind déposé ko ci table procureur du mujj fenn kon bu yeboo nga bàyyi ma ne ko waaw ba yow nga bàyyi grève bi loolu la ma ci tegaloon mm-hmm. donc si suñu quatorzième waaw quatorze jours lekku leen non quatorze jours waaw naan rek léegi nag du coup après loolu moom moo taxoon nag bi bi bi bi waa administration euh, kii euh, régional bi mm-hmm. euh, directeur régional de l' administration pénitentiaire ñëwee pour dissuader ñu comme ni ñuy def rek dañoo bëggoon yóbbu bureau directrice ñu toog fa waxtaanee ko foofu noonu. Mm. ñu ne leen déedéet ñun du toog di tëju si ay quatre murs dañuy wàcc si détention bi. Mm. won leen conditions yu tax ñun ñu ne dañuy grève de la faim. d'accord l'objectif euh, principal c'était ça mm. mais bi ñu wàccee foofu noonu di di pour expliquer les mauvaises conditions et tout. comme nuy wax rek yaa tout le temps des gens yoo xamante ni bon ñoom daal il fi du peu rek et ñoom ça donc am ñoo détenu yoo xamante ni ils étaient voilà du côté de l'administration waa dérangé wu leen parce que ñoom se foofu seen dëkk la yee def nañ fa ay at ils étaient du côté de l'administration et ñoom ñoo indi coow li ndax bi faala di wax dañ ko doon topp di ko yuuxoo bi ñu toppee di ko yuuxoo nag am benn détenu boo xamante ni malgré que nekkul détenu politique dafa bokkoon ci grève de la faim bi hmm. kooku moo ne faala yow munoo bàyyi wax ji comme boobu ba tey yaa ngi wax ñu topp di nekk fii di la di la di la kokkali. Mm-hmm. après benn détenu bu nekk côté administration daal di koy ne yow kenn waxul ak yow ndax yow yaa yow seytaane nga li yëpp yaa ko fay rek mbéj ko. Mm, léegi nag bu ñu ko mbéjee nag affaire yi jaxasoo. ci kanamu pénitentiaire ci kanamu administration bi yëpp. pénitentiaire mu mel ni nag comme dañ leen ne rek su kii amee rek ku nekk rek. demal dama jël ah, kenn voilà man man man déjà man ki ma xaañ siwo bi si bopp xaañ ma chaise man kooku man du xaw ma ko sax man du ma ko maanaam bokkuñu sax jaarukaay ci prison bi on se fréquentait même pas salaamaaleykum sax sekkuñu mais yéen a bokkoon cellule bokkuñu cellule. fan la bokkuñu sax nekk chambre 3 la bokk mais mais détention bi hmm. bon seen seen bureau bii nii sax wax dëgg yàlla moo gën a yaatu détention bi. looloo tax au petit matin ubbee buntu euh, a si biir nit ñi jël ma dugal ma si chambre 2 bi ñu tëj ma foofu noonu. boobu amatoo force yaa ngi grève de faim mais dan dan ma soxatoo man ma moom su ci man mënoon naa cee dee ndax man oh. gaañ danoo daw songu ma man xaw ma lu xewu léegi après ñu tas ñu ku nekk ñu dugale ci benn néeg tëj kii bi nag looloo taxoon nag le lendemain matin bi ñu xëyee ñu ne duñ génnee nit ñi pour appel parce que wóorul comme la situation la tension elle est vive nan ñu bàyyi si biir def appel foofu noonu voilà après nag après yaayu des menaces ay boo leen génnee fii dañ leen di rey ay affaire de ñun prison miin nan ko buñ dee buñ leen defee tamit fii la ñuy toogal c'est ça ay tendance ah, effectivement mais yéen dangeen ngeen woon euh, l'administration ou la directrice ni moom moo jël ay nitam pour ñu defal leen bagage. mais waa parce que mënu mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko mënuñoo écarter thèse boobu dans la mesure ou ñu nu doon defar ñu nu doon linger ñoom ñu bu ñu paree ñoom ñëpp dañ leen neexal ñii ñu nekkoon ci néeg bu bon boobu di chambre 2 dañ leen jël defal leen mutation yóbbu leen entre guillemets ci chambre VIP yi ñenn ñu jël leen def leen ay employés et donc ñun on ne peut pas écarter cette thèse là ndax nit munul def lu bon ba pare nga di ko neexal. Hmm. loolu moom moo tax ba pare ñun man ba pare li gën a metti mooy. mutation bi ñi ñi ñu yenn détenu politique yu ñu yóbbu leen ci chambre entre guillemets VIP yooyu noonu bin paree dañ leen indiwaat indiwaat leen ci néeg yu bon yi ñii ñu indi leen ci chambre 2 ñii indi leen chambre 3. ngeen dundul la ngeen dundul voilà ñoom man man dong lan ci changé wul woon parce que man ne moom bi ma gisay commencé gisaatee mutation yi ci laa ne man dong ngeen ci mënul changé ndax man bi ma ñëwee ba tey chambre 2 ngeen ma maintenir. te bi gën a pire moo gën a pire ci gën a